waaw réew mi dafa nekk réew moo xam ne mën naa ko wooyee réewum njuuñ njaaj réew waaw réewum njuuñ njaaj waaw ah, ndax ki ko jiite moo wax ne bàyyi na njuuj njaaj mm-hmm. waaye dañ koo fàttee wax waxal sa gars yi ñu bàyyi wala njuuj njaaj mm-hmm. waaw kon nag réew mi dafa nekk réew moo xam ne dëgg da feer tumuranke saa njóogu suñu waxantee dëgg mm. waaw nit ku la gën a rëyub oto gën laa bari mbooloo gën laa kawe kàddu moo la gën a ragal a dégg dëgg moo la gën a ragal a wax dëgg mm-hmm. waaw loolu moom nañ ko seetlu. Hmm. léegi nag am réew bu demee ba dëgg manqué fa. waaw maanaam jàmm fay manqué. waaw loolu moo tax nu war a delluwaat téyewaat suñu réew mi te téye ko ci dëgg. Hmm. dëgg nag mooy ay loi yuñ bokk teg ko kenn ku ne dëggu ci biir loi hmm. parce que bu fekkente ne dund ndax réew mi léegi koo waxal. lekk naan may daw lu ma lekk may daw lu ma naan. boo dajee président doo ko wax lu lay avance loo de loo lekk loo naan. diw naan diw mi ngi lekk xaalisam diw lekk lekk lekk naan lekk naan. te naan du dara. lekk ak naan. warta tënk doomu aadama parce que boo xoolee ci lekk ak naan la nga lekkoon daaw ak daaw géej boo xoolee fa ngeen mujj yéen ñaar te mu wóor na leen li ngay bëgg a lekk nii mu lay tiital fa ngeen di mujj jërut mu lay tiital ah fu ngeen mujj yebal ci mpax rek doo ko gisati doo doo ko bëgg a gisati la nga lekkoon ak loo ko mën a foo ko mën a lekkee day mujj boo boo dootoo bëgg a geesu gis ko <laughs> waaw waaw loolu rek moo tax nit ki li nga jot a lekk boo ko seetlee li ngay waaj a lekk du la tiital da fexe ba mu sell rek. Ah, li ci am solo tamit li nga jot a lekk gën ngeen mujj yéen ñaar <laughs> li ngay waaj a lekk du warul laa waaw waaw wax boo ko seetloo tamit hmm. ay nag. Hmm. ñooy nekk ci génn gétt li ñu bëgg lekk ñi ngi koy lekk. Hmm. liñ bëgg a naan ñi ngi koy naan te ñoom am nañ marta bay di neefere ñi leen koy tonnil. te nun moom ku ci bëgg a neefere nga sonn lool. waaye am nit ku am marta bay <laughs> neefere ñi la koy tonnil amul. waaw amul kon nag doomu aadama. xanaa Dubaay. amul ci àdduna dama ne. kon doomu aadama doomu aadama moo ëpp. doomu aadama moo ëpp di fexe ba tënk ni boppam tënk ciw nag. Mhm. mooy noo lekke noo naane. nit li ko yàlla jox. tam kawee ko ñëpp. Mhm. mooy ay loi ay loi nit rek mooy bëgg mooy bëgg a sëy ñu ne ko loi bi ngay jaar ba sëy mooy bëgg a génn ci sëy ñu ko loi bi ngay jaar bi génn ci sëy bi mm-hmm. nga bëgg a lekk ñu ne la loi nii ngay lekkee mm-hmm. nga bëgg a naan ñu ne la nii ngay naane mm-hmm. nga ne tëdd ñu ne la nii ngay tëdd damaa bëgg a am kër ñu la nii nga koy amee damaa bëgg tukki ñu ne loi yi ngay jaar lépp loo nit mënta def lu génni loi damaa am doom sax ñu ne la nii mooy tënk liñ tënk ci loi bi loi yooyu nag moo tax doomu aadama gën nag gën xar gën bëy te hmm. loi bu ci nekkee leneen hmm. di ko ci fekk lu dul moroomu doomu aadama hmm. amul meneen mindeef mu koy fekk ci biiri loi naan ko dama ciy tënku kon nag doomu aadama li li ñu mën a boole te suñu doomu aadama di gën di kawe di gën di dëgër mooy loi yu dëgër ñëpp respecté ko di ci dund loolu maa ngi ciy woowaat waa réew mi bi ci des mooy gis nga lekk ak naan ba tey foo mën a gis ak feet lu feet gi rëy rëy rëy ñu naan xéewal yi xéewal yi xéewal yi boo dégloo tuuti dégg gaa yi naa ana ana duus bi ana duus moo tax dund gii ñu bëgg a jël def ko dund gi lekk <laughs> ak naan ay noos lekk naan loolu du dund waaw dund da ngay fexe ba taxaw ci kaw dëgg taxaw ci kaw yu loi yu dëgër mm-hmm. du ci dund loolu loi mooy li la kaweel mm-hmm. waaw luwaa yi nga séq ak suñu borom mu naan la julil ma fajar julil ma gee julil ma tàkkusaan mm-hmm. loolu moo la kaweel moo tax nga moo tax yemoo ngi ci des saa bu la luwaa rëccee rek nag yi la tane ndax nag yi moom ñi ngi lekk comme ni ngay lekke ñi ngi naan ñi comme ni ngay naane dund gi loo xam ne jeunesse bi laa koy lancé 30 secondes rek lay doon du yàgg mooy. Mm. yàlla dafa misaal doomu aadama ci benn bis. ah soo yeewoo. soo yeewoo. doo jékki-jékki rek génn sa néeg. di nga borosu. Mm. sëlmu. Mm. sangu. diw laal parfum laal ndox maanaam waajal sa jëmm. Mm-hmm. a génn. Ah. waajal googu ngay waajal sa jëmm. Mm-hmm. di soog a génn. Ah. Euh, loolu li muy li muy li muy li muy wane mooy. Mm-hmm. Euh, nit ki mooy bu nekkee liir. waaw judd nit du judd hmm. rek dugg ci àdduna bi nit du juddu rek dugg ci àdduna bi hmm. hmm. day juddu ñu waajal ko comme ki yeewu ni muy waajalee boppam pour génn waaw ki judd noonu lañ koy waajale yar ko jàngal ko defar ko jubbanti ko doo ko ci àdduna bi boo yeewoo comme waxtu wii ñu nekk ay quinze heures dix-sept heures maanaam waxtu wii loolu mooy ndaw mooy ndaw doo boo génnoon ci mbedd mi doo gis ko yorub am ko nit doo gis oto bu taalub làmp kenn ku ne ngi waaxu doo doo doo moytu dara waaw lépp loo bëgg a def yaa ngi koy def. Mm-hmm. loolu mooy digg jeunesse. digg jeunesse voilà. mooy digg digg bëccëg gi. Mm-hmm. soo demoon ba timis jot. da ngay gis ñi nekkoon fii kenn ku ne commencé jëm fenn. dem jege ji sa kër toog. Mm-hmm. su la oto yi daw day niit. soo bëggee dugg sa néeg bët yi nga yoroon ci bëccëg gi nga yor de. waaye da ngay taal lampe pour dimbali bët yi. parce que la nga mënoon ak la nga doon gis ci bëccëg ma ngay dañ. loolu mooy màggat. dégg nga soo doxaatee ba guddi gi jëm ca minuit jëm kaw. waaw kooy wër demal fekk ci digg lalam. ci digg lal ba waaw. dégg nga parce que kenn ku ne yaa ngi jóge nga ci mbedd bi jóge nga ci biir kër gi de yaa ngi ci digg lal yi parce que loolooy tële tële da ngay dem ba nit ki fi nga benn place ngay dunde sa àdduna loolooy tële saa boo demaatoon ba xaaju guddi ba quatre trois heures jëm ca kaw mhm. koo ñëw da ngay fekk yëgatu dara loolooy dee waaw day mujj guddi gi ñëpp na selaw kenn du yëgate dara ñëpp dee loolooy yeewu xëy bëccëg mhm. timis nga ñibbisi guddi nga dem toog sa néeg xaaju guddi nga de nga nelaw loolooy loolooy euh, jàngi digg gone màggal màggat tële de juróom yi la yàlla misaal doomu aadama ci benn ci benn fan loolu nag bu amee mm. li may wane mooy waaw doomu aadama kon bëccëg gi rek la mën a utiliser ni mu ko bëgg a utiliser mm. yeneen yëpp bu ko bëggee utiliser du ko du ko mën du ko mën kon nag loolu mooy mooy jeunesse su doomu aadama mooy jeunesse jeunesse boobu nag mm-hmm. moom la yàlla jox masxuliya mu yor àdduna di ko mm-hmm. wëlbati ni mu ko soobe kon nag bu kenn nangu waaw liggéey nga di ci tàyyeel wala nit ñëw di fooyee sa àdduna di yàq sa àdduna wala mu lay teree liggéey wala mu lay gëmloo ay fen wala mu lay def loo lenn loo xamante ne maanaam day yàq sa àdduna day yàq sa jeunesse hmm. nañ ko bàyyi nañ ko bañ d'accord voilà loolu daal lay lancé nit ñi pour ñu xam ko hmm. waaw jërëjëf Cheikh Bara macha allah waxtaan wi am na solo te discours bi euh, defe naa ni dugg na dugg bu baax a baax ci hmm. bopp ndaw ñi Cheikh Bara euh, Khadim Samb dafa mel ni euh, Euh, réponse du berger à la bergère. Xaadim Samb na ni am na. waaw euh, Xaadim <laughs> Samb nag moom moom moom euh, wax dëgg yàlla gis naa ko mu may tont waaye nag li mu tontu garaawut ndax ñaanal na ma sax maa ngi nangu ñaan gi waaye nag dama ko bëgg a conseiller. waaw parce que moom waaw nee na moom du ah, moom loolu la ma doon yëgal nee moom du conseiller Sénégal